soxla woon rek ko daayal xariir su ko defee borom bi naan leen waxu doo dégg nga jël leen walla jubee leen ila tayi bi waxu doo juboon ngeen waxu doo gindi gindiku gindiku woon ngeen ci na ila tey bi jëm ci way teey minal xawli ci wax te mooy yéen yéen doon borom laa ilaha illallah muhammadun rasulullah waxu doo gindeeku woon ngeen ilaa siraatil hamidi jëm ci yoon wuñ sant wi moo tax ngeen am lii tey yéen da nangu woon topp komba bi ba win ko kon aaya yi ñuy jàng li muy wax yépp loo rek la mooy yent yàlla muhammad ak làngam gi ak xéeféer yi ak seen làng gi danañ daje danañ xeex su yonent bi ak gaayam yi gañee seen paya ngi nii buñ leen gañee seen paya ngi nii te mooy inna laa yudxilu lazina amanu ana ñi doon xeex dëgg gi ana ñi bëgg doon dëgg gi feeñ ana ñi doon mës-mësal dëgg gi di ko sàng mbàjj ji ñoom la wax ne xuttiat lahum siyaabu min annaar yusabbu min fawqi ruusimil amiimu complété safara buñ bëgg a sangu ndoxam safara buñ bëgg naan ndoxam safara buñ leen di duma weñ guñ tàngal ci safara suñ bëgg génn ñi ba ma xaal leen ñi dellu ci biir seen lépp safara la dafa metti dégg nga kon ñaar yi rek ñoo fi ne nag loolu nag lu leen ko may wa huddoo ila tayyib min al qawli ca àdduna nangu woon ngeen a dégg dëgg gi ak wax ju teey ji muy alxuraan ngeen nangu ko jël wa huddoo ila siraatil hamidi nangu woon ngeen a jël yoonu sant yàlla wi te mooy laa ilaha illallaahu lépp dem muhammadu rasulullahi lépp sotteeku ne gàññi waaw te loolu mooy jeex ak des nangu woon ngeen a delloo naar bi xorom si kàddu gu tey gi mooy laa ilaha illallah alquran wax na ko ci suratu ibrahima nee na masalu kalimatin mooy baatub laa ilaaha illaa bi masalu kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha saabitun wa faruha fi samaa'i tuuti ukulaha kulla hiinin bi isni rabbiha laa ilaaha illallah mu ne meññ garab la dafay sax day dëgër day meññi meññeen mi du jeex dañ koy lekk ana kan moo ci mën a lekk ana moo mën a jël laa ilaaha illaa def ko meññet di ci lekk tey alquran wax na ko nee misalam la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñu na, mais dafa melni garab gu dëgër go xamne ne li mënu koo daane garab gu meññ meññeen mu neex te du rak jamono bu ne ñing ke lek serigne bi daan na wax ne bo teddé bo taxawé lek soo hege lek bo teddé gën koy jégé la ilaha illallah muhammadur rasulullah La ilaha illallah lepp ne yereŋ yalla rek limu mulku al yawm ñepp ne tek lillahi wahidul qahar muhammadur rasulullah lepp yalla ne gagne la yalla amone yob mu may ko yontu yalla muhammad mu wacce ko ci ko melokan wa ak tur wa ak jëmm ja ak jëf ja ak jeexital ye ya muy juromi lepp la ñagati jox yalla muhammad moo la ilaha illallah nga dem sa yoon muhammadur rasulullah nga ni sa lubari nga lubari lu bari nga am lu bari iman bi doy waaw nga bëgg yàlla bëgg ñooñ yàlla àdduna dara dootul la ci jaaxalati yàlla nañu ko yàlla defal suma borom nee na inna lazina naka gaañ nga xam ne kafaru weddi nañ waaye su doona ñuy haaya an ci yoonu yàlla mooy ñiy jéem a fekk ni ñi ci dëgg gi rek wal masajidi ñiy haaya jàkka alxaraam jër ñu normal xemuñ ci haaya yoonu yàlla waaye dañuy haaya jàkkaa yàlla yi allasi jàkka ja nga xam ne jaal naaw def nañ ko ñun yàlla li naasi ñeel nit ñi sawaawun ñuy way xemoo alxaakifu aji dëkkee màkka wala aji dëkkee fii ca jàkka ja wal baadi ak aji sori ak aji dëkk ca àll ba jàkka ji ñi nga xam ne dañuy weddi yàlla di aaye dëgg ak yàlla gi ba pare di tere nit ñi xaj màkka jàkka jooju nga xam ne wala néeg boobu nga xam ne ñëpp ci yemoo ku dëkk màkk ak ku dëkk ci beneen dëkk ñoo ci yemoo lii nag la yàlla saxal xam naa bu fekkee jàkk ja nekk màkk la moom gaa yi nanguwu ñoo yemale ñëpp moom déedéet waaye gis nga jàkk jooju ñépp a fa yemoo xanaa kuréer réer waaye yàlla nee na kenn xamul doole pour aaya màkka kenn amul doole pour aaya jàkka ja jàkka ja ñépp ci émoo ku dëkk ci dëkk ba ak ku dëkk ci beneen dëkk ñoom ñépp ci émoo parce que jàkka ji dafa am lu muy sémbule lu muy wane benn allaama bu mag lay wone waaw te mooy kaaba gi ñi nga xam ne dañooy weddi yàlla xemuñ ci ñi taxaw ci kanam nit ñi ne duñ topp yàlla xemuñ ci ñi aaya jàkka ji jàkka yi nag ñett lañ yonent yàlla muhammadu nee jàkka yi ñett lañ jàkka masjidul haram jàkka masjidu nabi te mooy nabawi ak jàkka baytul maqdis ñetti jàkka yi le moom jar na nit ki laxas diggante penku ba soxu dem julli jëfa waaw waaw xusuusinatukum xinda kulli masjidin mooy jàkk yooyu yàlla di wax ne na ngeen dem jëli seen taar ba fa nekk xusoo jël leen waaw xusoo jël leen siinatukum seen taar xend kulli masjidin mooy ñetti jàkk yooyu jàkk yooyu kenn ku ne ci ñun am na fa taar demal nga jëli ko waaw jàkk yooyu kenn ku ne ci ñun def ci war a jeex takk ñoom rek moo jar nit ki jógee fii ba penku ki ñetti jàkk yooyu kenn amut barke pour aaya jàkke yooyu ñépp ci émoo jàkke yooyu ku xonq ak ku ñuul arab ak ku dul arab tubaab bi ak ku dul tubaab ñépp a ci jàkke yooyu ñetti jàkke yooyu ñépp ci emo waaw baytil maqadis nag moom gaa yi génn nañ ko ci boo seetaanee fan yi ci biir weeru koor yi da nga gis si yahood yi niñ leen di sonnalee dañuy kabar di julli di naafale ñiy ñëw di leen pëmax aka dóor ka def yu méttee métti xaama yonent bi def doon lépp wala ñetti jàkk yooyu la ci namoo xam naa daal fekkee Baytul Maqdis mooy ñetteel bi moom xam naa ku fay tukki booy boo nga xaar ba ci kanam bi moom gaa sonal nañ leen ñu leen di sonal bu baax a baax a baax waaye man nag li ma gën a jàpp mooy yonent bi daf doon lépp man laa gën a jël mooy ñetti jàkka yooyu daf lépp waaw kon kenn ku nekk na jël taaram ci jàkka yi dégg nga borom bi nag isina fii benn jàkka bi mooy màkka nee na ñi nga xam ne dañoo weddi yoon yàlla yi ba pare di haaya jàkka ji jàkke ji nga xam ne def nañ ko li naasi sawaun lil haakifi sawaun lil haakifu sawaun lil haakifu moo xam ki dëkkee màkka la fii wal baadi ak ñi dëkk ci àll bi wala nga ne moo xam buur la wala baadu la moo xam ku xonq la moo xam ku weex la moo xam ku am la moo xam ku ñàkk la ñépp emoo ci jàkke ji wa man yurid ku namm na ku bëgg na fii ci jàkka jooju bi ilhaadin ci jeng bi sulmin ci tooñ nu siqoo danañ mosal ko min hasaabil alimin ci mbugal mu métti de jàkka jooju ku ci ku fa bëgg tooñ ku fa bëgg a tooñ danaa la mosal mbugal mu metti de waaw xam naa ne nag bu dee kaaba gi itam léeg-léeg gaa yi dafa def ay toj-toj de dem ba egg ndeke yow bi ngay paas di dem makk yépp sàcc la yóbbu buuxante boobu gaa yi di wër kaaba gi noonu am na ñoo xam ne ay millions lañ ciy jëlee parce que doomu aadama bu sonnee dootul xamati lu muy defati su ko defee ñii dog caméra euh, caméra jàmbur yi rek mbooloo la nekk nag nekk ci biir mbooloo mi di dog rek di rocci di joxante rek di sàcc rek gis koo xam ne dafay dogee pileen tigeti pileen ba màkka ndax alal jël alal jàmbur yee ko yóbbu yàlla nag nee na koo xam ne danga nga bëgg a aaya jàkka ji wala nga dem fa pour lor jaami yàlla yi danaa ko jëflante yow nu siqu min xasaabin alim mbiram jàkka ji muy tudd te moom lay tàmbali nii ak ibrahima alayhi salaam ma nga xam ne moo ko tabaxoon woote moo tax ñi tuddee su saar wi suratu xaj moo tax ñi tuddee saar wi suratu xaj su ko defee jaam bi na fexe ba ñetti jàkka yi mu jël ci taaram léegi nag ki nga xam ne moom mënta dem màkka mënta dem ci jàkkaa madina mënta dem baytul maqdis moom na ci jàkka yi rek ñi jege ko mu jàppale ci yooyu waaw jàkka ju njëkk ji borom islaam a ko moom moo ko jiite beneen jàkk bi borom imaana ko moom moo ko jiite borom jàkk ji ihsa borom ihsaana ko moom moo ko jiite kenn ku nekk bu la jiitee ca jàkkaam ja danga am lu bari kon jàkk yi muy junj neen fenn moom rek a jara waaj dem dafa jullee ji wala moo jaral laxas dafa dem ñetti jàkka la alquran ku ci nek fo em rek nga em alquran sori na alquran xóot na alquran jege na waaw borom ne ku na ma yak jàkk ji wala nga bëgg lor ñiy julli fi ci ji dana la masal mbugal hmm. wa fatalakul isbawana ba nga dëkkaloo nañ is ba wax naa ba nga xamee ne wàccee nañ li ibrahima ñeel ibrahima xarit ba makaanal bayti ca barabu néeg ba wàcce nañ ko fa pour mu dëkk fa ñu ne ko an ey yow ibrahima laa tusrik bi bul ma bokkaale man yàlla say an dara barab bii di màkk dëkk fa waaye li nga fay njëkk a def mooy fexeel ba wéetal ma man yàlla bul fi bokkaale de wa tahir nanga nga laabal baytiye sama néeg bi néeg bi nga xam ne ñu bëri ci ñu bëri ci nit ñi jaamukaay xërëm lañ ko def néeg bi paase na paase na xërëm de nang ko laabal mooy nanga fi taxawal xàqu génn fi mbooleem xërëm de li taayifiina ñeel way wër yi wal xaayimiina ak way naafale yi ñi nga xam ne dañuy wër dem ak ñi nga xam ne dañ faa sax di julli nga laabalal leen néeg bi war rukkoo yi ak way rukkoo yi as sujjóot yi ñëre way néeg bi Ibrahima ndax néeg bi kat nit ñi yépp a ci te ñu bari dañ fi bokkaaleeg yàlla waa Màkka ñoom niñ doon bokkaalee ci néeg bi moo doon ay xërëm lañ fa defoon waaye ibrahima moom bi muy tabax néeg bi xërëm yam fa dàqee mooy li ko yàlla njëkk wax ci aaya bi an laa tusrik bii mooy fexe ba bul jëmmi bul jaamu jëmmi néeg bi buñ jaamu jëmmi néeg bi fal yaxbudu rabba hasal bayti bu ñuy jaamu nañ jaamu borom néeg bi waaye buñ jaamu jëmmi néeg bi bokkaale ci jamono jii nag ba léegi nit mën naa dem màkka loolu dal la mooy kaaba gi ak tabaxam ba waaw aswat xeer woowa nga xam ne xeer la comme xeer yépp hmm? safa ak marwa nga xam ne xiifiir dañ fa daan taxaw bu njëkk di mooy yàlla xarafa noonu ak jamra ya ngay sànni nga dem defé né lola moy mbir mi lola yépp ay mbir la yo xamné daf lay yobbu ca wétal yalla bul jaamu lola bul ék ci xéer wacc ci xéer jël xéer sanni wër xéer bul ko nangu xéer du wër xéer ndax yow xéer nga té buñ la dugalee ci biir suuf rek nga xamné yow xéer nga suuf nga kon xéer du wër xéer da ngay wër néeg bi waye jappal ne ya ngi wër yalla bi du yalla waye borom néeg bi ngay wër motax sëriñ bi muy wër ba daf ne maa ngi nii di waaye xol bi moom xaw la saatika xayyama maa ko samp ca pay yàlla waaw góor bi mooy aj waaye wan nañu ne suñ taayam jeex na kon laamin wan nañu ne tayim bi jeex na ñu yeewal foofu insha allah buñ dellu see danañ continuer yow ci aaya yi nga xam ne mooy tegtale suratu xaj ji li tax ñu tuddee ko suratul xaj ji ci aaya yooyu lañ toll mooy ibrahima ak kaaba ak sañci gam sañcoon màkka yàlla nañu yàlla may dégg ak topp fekk ak tal wa sallallahu wa sallam ala jërëjëf Cheikh Baye Mokhtar Touré mbokk yi mu ngi noonu